الحمد وشكري مع الكل بيسارا لو ردان دون سقط عند سرسارا mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen nuyu di leen ziar baax a baax ñu ngi fii nga xam ne moom mooy Mauritanie ci bërëb bu sell bi nga xam ne moom mooy Sarsara fi Serigne Touba Khadim Rasoul nekkoon te mbokk taalibe yi jugee Sénégal ba ci Mauritanie ñëw fii daje fii. fas yéene fi amal ziar bi nag nekk dix-huitième édition dix-huitième bi nag ziar bi nga xam ne moom mooy am fii tey ni ki euh, àllarba la ñu ko tàmbali euh, fii nga xam ne moom mooy Nouakchott ak ci musée bi waaye tamit ci ñu ngi fii nga xam ne nii moom mooy bërëb bu sell bi ñu koy wax ardu saalihin euh, digganteem ak Matam Moulana ku nekk nag xam ne ni fukki kilomètre la ak juróom fa la shrofa fa la shérif boobu noonu dëkk di Haj Misri ci kanam tuuti ni di xam ne Eh, ñi nga xam ne ñoom la fi yebal ci cérémonie bi ci karam Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtala waaye mbokk yi xam ngeen ne événement bi yëpp ci wàllu communication tubaa ca kanam def ñu ci gunge ñu fas yéene ànd ak ñun ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci eh, Mauritanie. fekk fi benn équipe boo xam ne nii ci njiital Ibrahima Sarr mu boole ñoo tamit benn coordinateur bu tudd Serigne Bassirou Diop chargé de communication fii ci cellule eh, bi nga xam ne moom moo nekk ci Mauritanie Serigne Bassirou Diop ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax di nuyu tamit euh, mbokki taalibe yi fi teew yëpp di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu Mauritanie ak li ko wër di leen sant bu baax a baax nag di rafetlu timit teewaay bi wax dëgg fa yàlla euh, di ñaan tamit lépp ñu fi ñaan yàlla na ko suñu borom nangu di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te wér di ñaanal tamit Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mahamadul Murtada mu yàgg fi lool te wér di ñaanal mbokki taalibe yëpp di fi teew ñu yàgg fee teew ci barke Cheikh Khadim waaw euh, mën nga ñu présenter liggéey Touba ca kanam fii ci Mauritanie avant ñuy ñëw ci événement bi nga xam ne moo ñu fi dajale tey. waaw fii Touba ci kanam bu Mauritanie moom mën nañ ne comme Touba ci kanam ni muy doxee ci àdduna bi yëpp dafa am benn coordination am tamit chargé de communication am trésorière am daal li nga xam ne lépp dafay composé Touba ca kanam fii ci Mauritanie. ah muy nekk tamit liggéey liggéey boo xam ne euh, mi ngi aju ca Touba ci kanam ba nekk Sénégal ñun fii yi ñuy jaay. 600 ouguiya lañ koy jaayee bu dee ci CFA day nekk 1000 francs CFA weer wu dee tamit dañuy wër ànd ak suñu équipe bi muy góor ñi di jigéen ñi ñu wër mbokki taalibe yi pour ñu daggal ni seen carte barkelu 600 ouguiya par mois liggéey la boo xam ne tamit wax dëgg fa yàlla comme ni slogan bi di laaj lu ñëpp di man di ko def tamit fu ñëpp di gis vraiment mu nekk loo xam ne tamit macha allah taalibe yi bëgg nañ ko xanaa tamit danañ ci soññewaat bu baax a baax rek ngir mbokki taalibe gën ko bàyyiwaat xel ndax Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér moo ne mbooloo mi de bi muy door a am na ci ñun yaakaar te yaakaar ji chaque année day dolleeku ndax mooy association boo xam ne bi ñu ko commencé ak léegi 2017 lañ ko commencé waaye fi mu li mu toll ci ay milliards li mu dajaleegul war na mat 5 milliards et mu nekk tamit ba léegi tamit objectif bi soxla amaguñu ko muy ñaari milliards ñaari millions ngi murit kon communication bi tamit te ñu yore loolu ñi ngi ñaan mbokki taalibe yi ñu xam ne Touba ci kanam yow yaa koy fekk soo ko déggee wala xamoo ko boo ñëwee fii ci Mauritanie am na fi laajteel sëñ Ibrahima Sarr mooy coordonnateur bi cinquième la nekk chaque jour weeru dee tamit dañuy wër kon nag loolu la amul lu ñoo xam ne dañu ko wax bu ko defee tamit ñu dégluwaat bu dee am na beneen laaj. waaw euh, xanaa rek euh, ci maanaam euh, ni ngeen koy tasaare ci biir Nouakchott dafa di comme ni nga ko waxee loolu da ngeen xaar weer bu jot wala dafa am chaque jour commission boo xam ne ni ñoo dugg ci biir di fekk mbokk taalibe yi ci seen place wala ci seen i bërëb yi nga xam ne nii moom ngeen euh, comme wooye muy siège boo xam ne am ngeen ko fi pour maanaam wecceeku carte yi. waaw waaw ni ñu koy doxalee mooy euh, at mi 12 mois la weer bu nekk rek dafa am ay équipe yu jóg maanaam boo koy xayma ci équipe am nañ 3 équipes yoo xam ne dañuy xëy. bu ñu xëyee wër dëkk bi maanaam côté bu nekk am na côté am na ko euh, dañuy yor ay rajo yor ay oto côté bu nekk tamit am na équipe bu fay dem bu ñu demee tamit topp bu dee marché yi ñu xool ñi nga xam dañu yor ay place bu dee tamit ci kër yi dañu def ay porte à dugg ci nit ñi waxtaan ak ñoom di leen wax tamit carte yi ndax it mbir la boo xam ne ñaaree ah nit ki da koy bëgg waaye pour mu dem di fekkee ji day xaw a jafe ñun nag so li ñu ko commencé mooy di wër mbokki taalibe yi weer wu dee wu nekk tamit jigéen ñi dañuy ànd ak góor ñi ñu topp dëkk bi benn weer wu nekk daal danañ jël jaayante ak Serigne Touba benn bis wër Touba ca kanam lépp lu ñu am tamit dajale ko versé ko ci Touba ci kanam ba nekk Sénégal waaw tey bu ngeen doon xayma li nga xam ne jot ngeen ko dajale ci maanaam événement bi nga xam ne moom la ñu nekk muy ziar Sarsara édition 2022 bi euh, mën nga ñu koo tënkal waaw li ñu ki yëg yi nag wax dëgg fa yàlla xam xamaguma ñaata la ndax boobaak léegi ñi ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci liggéey bi nii fi lañu teewul nii collecté guñ te xamaguñ tamit ñaata carte lañu jaay waaye daal euh, li ñuy xool mën nañ sax ne at mi atum bi ñu génn muy 2021 yi ah, liñ dugal chiffre bi bu ñu koy xayma war na nekk ci ay 8 millions et poussière loolu tamit liggéey bu am solo la boo xam ne tamit ah bu loolu amee timit dañuy am taalibe yi Serigne yoo xam ne fii lañ nekk ci biir dëkk bi am na ñoo xam ne ay Mauritaniens lañ waaye yàlla dafa dogal ñu nekk taalibe Serigne Touba am ay sénégalais tamit ñu fiy liggéey ndax comme ni nga ko waxee léegi Serigne Touba fii ay soppe la fi am ak ay taalibe ardu saalihin la ko tuddee woon moo tax tamit mbokk ñi ñuy soññaat tamit ah, ñi nga xam ne ay taalibe Serigne Touba lañ te yàlla dogal ñu nekk fii ci réew mi ñu leen di soññaat ci kanam ndax Touba ci kanam moom man mën nañ ne connexion la rek foo dem dangay ngay li bokk ci liggéey bi bokk ci liggéey bi ni ñu koy defee yomb dagg dagg carte membre weeru dee nga dagg 1000 francs fa loolu mooy nekk liggéey bi nga xam ne di ci sant nag wax dëgg fa yàlla soxna yi nga xam ne ñoom lañu àndal ñi nga ànd ak soxna Mbène Thiaw jëwrin ànd ak soxna Ndey Fall ànd ak timit soxna Paya Bambagay soxna Maam Diarra sëñ Moustapha ak sëñ ñi nga xam ne ñëpp rek bu ñu limee dañuy juum leen sant bu baax ci di sant timit sëñ Ibrahima Sall ndax moom moo ñu nàmpatal ci liggéey bi mu nekk kilifa goo xam ne tamit ni muy liggéeye daf ñuy jox xalaatam Touba Ca Kanam mbir la boo xam ne kenn ku nekk day doxal xalaatam te xalaat bi gën a rafet rek la ñuy dox kon ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di sant tamit Serigne moo Talla Mbengue bi nga xam ne moom mooy denc koppari Touba Ca Kanam te boobaak léegi tamit lu jub rek ndax ñun kilifa gi kenn la muy sëñ Abibu di sant timit sëñ Ibdou Fata nga xam ne ndaw la loo xam ne ndaw lu sawar la boo xam ne ñun ñëpp daf ñu jox envie liggéeyal Seexul Xaddim kon ñu ngi koy sant baax ko gërëm léegi léegi ci ci li nga xam ne moom la ñuy réaliser fii nga xam ne moom mooy ci Sarsara am na jumaa jun fii naal euh, ndax coordination bi ñu ngi dox ci li nga xam ne moom mooy seen participation wala bokk commission bi wala kuréel gi fédération bi nga xam ne Serigne Sidi moo ko jiite. Euh, amagul waxtaan bu ni mel bu jëm ci liggéey bi nga xam ne moom mooy ci jumaa ji fii Sarsara. waaw loolu nag euh, amagul waaye en tant que talibé ndax ñun. dañu fay ñëw ngi liggéeyal Serigne Touba yàlla dogal tamit Touba ca kanam ndolli dolli ko ci sunu kaw comme ni ko sëñ Mountakha waxee ah mbokki taalibe ñun ñi ñëpp tamit ay taalibe Serigne Touba lañ lépp loo xam ne Serigne bi woote na ko danañ génne danañ génne sunu alal def ko ci waaye nag bu dee jëmmi Touba ci kanam daa am doxalin woo xam ne sañuñu ci laal benn dërëm di ko joxee te amuñu ci ndigal xëy na nag ñu ci soññee bu fekkee ne tamit coordination bu nekk Touba ah mën nañ cee taxaw taxawaay bees ndax pour festi bu baax a baax ñu ngi leen ciy soññ bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk fi ndax fii wax naa ko sànq lii la boo xam ne dafa bokk ci patrimoine Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul lekk tamit mu nekk lii boo xam ne dañ ko war a defar toppatoo ko te dara bañ fee manqué ndax gis ngeen taalibe nañu jógee fa sori di ñëw waaye tamit tolluwaay xaw naa doy waar waaye loolu tamit nag dañ ciy soññu mbokki taalibe yëpp rek di ci soññu tamit ah Touba ca kanam bu dee am na ci euh, lu mu ci mën a def en tant que Touba kanam waaye mbir mi liggéey bi daa am nu muy doxee waaye li ñuy jaay ci carte yi sañu ci laal dara ndax te amuñu ci ndigal kon nag xanaa ab soññee lay doon rek ñu nit te soññi tamit suñu mbokki taal bi nga xam dañuy yëngatu ci Touba ci kanam ñu fës ci bu baax a baax a baax ndax liggéey bi sëriñ Touba moom kon ni ko ah, sëriñ bi di waxee rek maanaam kum mu mu tafay du la liggéeyloo waaw moo ñaanoon ne kooku la man xadama aw awzaara fan na jihi wax fi lahu awzaara loolu mooy liggéeyu sëriñ Bamba kon képp ku ci nekk rek na ci góor góorlu mooy tànn nag ay liggéeykatam waaye nag comme fi nga waxee entreprenariat bu am am solo nga wax muy liggéeyu Sarsara bi di soññewaat jumaay Sarsara ji ndax sëriñ Touba daf ne woon waj'al buyuti kullaha masajidi fépp fu ma fanaan rek maa ngi lay ñaan nga defal ma ko jàkka kon jàkkay Sër Saara ji ñu ngi ciy soññewaat bu baax a baax sëñ Sidi Mbàkke tamit dañ koy sant bu baax di ko gërëm ndax taxawaay bi rafet na Touba ci kanam bi tamit bi mu ci amee lii taxawaayam am na ci am na ci solo bu baax a baax a baax maanaam taxaw na ci taxawaay bu am am solo di soññi taalibe ci liggéey bi kon nag wax dëgg fa yàlla koy sant di ko gërëm di soññaat mbokki taalibe bi comme ni ma ko waxee woon rek ci liggéeyu Sar Sara ñaata membre ñoo commission bi ñoo fi nekk fii nii waaw membre commission ba li fi li fi nekk nag bariwul lool lool booy xool ah man maay chargé de communication ak sëñ Moustapha mi bokk ci jëwriñu Touba ci kanam bi ak soxna Ndey moom mooy euh, chargé de moo topp sama ginnaaw ci chargé de communication bi ànd ak tamit ak nda euh, vice coordinatrice muy soxna Maguette Fall muy soxna Ben Thiaw ñoom ñoo fi teewagun ci communication ci ci membre yi Touba ci kanam yi nga xam ne daal ak tamit ay membres yoo xam ne ay collecteur lañ ku ci mel ne soxna Paya ak ñi ñu àndal ñëpp macha allah di liggéey liggéey bu am am solo. Euh, mbokk yi kon euh, loolu moom moo nekkoon euh, li nga xam ne moom mooy liggéey Touba ca kanam fii ci Mauritanie rawatina ci bërëb bu xam ne moom ñu nekk muy bërëb bu sell ci Sarsara te sunu mbokk Chorofa yëpp di ko tuddee Ardu Salihin xam ngeen ne ci liggéey bi day wëy ba fële nga xam ne moom mooy ca palais des congrès ak tamit équipe ba fa nekk waa tubaa ca kanam. Euh, ci coordination Ibrahima Sarr danañ ko fa fekk moom tamit mu am ay kàddu yoo xam ne ni moom la ñu tëjee li nga xam ne moom mooy séjour bi ak pèlerinage bi fi nga xam ne moom mooy ci Mauritanie jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di dig daje ci yeneen jotaay ak Touba ca kanam. ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na. Sëriñ Touba liggéeyal ko warteef la ci ñëpp. ku ko bëgg a liggéeyal ci xam-xam ak yarub ndaw ñi ci gu yaram ci néew ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leerug Touba ci ndoxum naan mu sell bi si wutal ndaw ñi am xëy da ngay sax dàq ci joxe weer wu nekk 1000 francs fa maanaam ñaari téeméer dong. benn bu ne rek ñaari na fexe fi ñaari téeméer. na ko jëpp dégg ba mor yëpp nañ ko dégg. fukki muri saade ak juróom-ñeent yu yu ko yéene te mënuñu ko ma ma leen maa ngi ñoom ñu nii. wajalilaayi maskani weer wi dee bu kenn des bul yem ci yow dong soñal ñëpp bu baax ay ci murit Tuubaa ca kanam weer wi dee na wajalilaayi maskani Tuubaa baa misras mi abijaayi xayri man abaa abdi wa sukri mal kulli bi saa law ridan duuna suqtin inda sarsara